AGT News. Pape Djibril Fall yëkkate ay kàddu jëmale ko ci jeunes yi nga xam ni ñoo ñëwoon ca manifestation bi amoon ca place de la nation moom nag ni mu ko jàngatee mooy que ñoo ñu dañoo nekk ay ndaw yoo xam ne ñu ci bëri mu lu leen neex ñu ci bëri ñenn ñi sax mën nañoo dund ba am 40 ans nekk ba tey seen kër papa yeek seen yaay yi ñu leen di yor di leen jox ndékki añ ak reer nekk ñoo xam ne dañ leen di utiliser léeg-léeg di leen dugal ci yenn gaam yoo xam ne ñoom maîtriser wuñ ko Pape Djibril Fall nag yooyu la kàddu TV fas yéene si def ab taxaw seetlu bu gàtt dafa am mbir moo xam ni dañ ko ku fan yi ci Pape Djibril Fall mooy que ne am na ay erreur de communication yu bëree bëri yoo xam ni mi ngi koy daal di def waaye nag dafa am loo xam ne tam faw ñu daal di ko koy nangul mooy la mu émettre comme idée nekk na loo xam ne duñ ko bañ waaye nag dañoo bëgg ngeen teewluñu pour comprendre fan la ñu jëm Pape Djibril Fall dafa am ci lu mu jugee mooy yuuxoo yi ñu ko doon yuuxoo ca place de la nation yuuxoo yooyu noonu moo waral tey ji kàddu yi mu yëkkati jagleel ko ñi nga xam ni ñoo di jeunes yi par rapport ak ni ñu leen di utiliser léeg ci yenn ndajaloo yi wala par rapport ak ni ñu leen di manipuler wala par rapport ak ñoom seen ñàkk xëy ni ñuy nekkee seen kër wayjuur yi ba am yenn at yi fekk ñoom mënaluñ dara seen bopp loolee erreur de communication la suñu jàngat bu gàtt ci bëri ñu ngi koy dagg vidéo boobu noonu di ko partagé c'est parce que dañoo bëgg a wane tout simplement ne moom Pape Djibril Fall actuellement juboowul ak ndaw ñi nga xam ne surtout ñoo teewoon ca place de la nation loolu nag ci ab leader politique dañoo jàpp ne erreur la ndax mënoo jugee ci benn bourde boo xam ne amoon na coow li bëri loolu yow ngay jugaat di yëkkati kàddu yi ni mel. nekkee di homme politique wala ngay aspirer à devenir quelqu'un de respecté dans ce pays am na yenn kàddu yoo xam ne boo koy yëkkati par rapport à une situation donnée da koy xool xoolaat ko seet ko setantal ko ba tax na Cheikh Bara Ndiaye la mu waxoon sax ni Pape Djibril Fall il se suffit à lui-même il parle avec suffisance loolee dañ koy dëggal waroon naa mën a laajte balaa muy joxe benn type d'analyse bu ni mel ndax bu fekkente ni danga nga ñëw di wax ak ay jeunes yu frustré yoo xam ne am nañ naqar jëmee ko ci président Macky Sall ñëwoon keroog di manifester sa teewaay am leen na loo xam ne jur na ko fa muy ay yuuxoo ak ay kaddu yoo xam ne yow neexu la ak comportement boo xam ne gis nañ ko ci yenn jeunes yi yow waroo leen ci dolli leneen lu dul ñëw waxtaan ak ñoom jéem a indi beneen discours boo xam ni da leen di convaincre da leen di rassurer par rapport ak yow ñoom li ñu yaakaar ci yow muy ñu jàpp ne da ngaa ak le président Macky Sall da a rassurer waxtaan ci dal wax ci tey waaye bañ a yëkkati benn kàddu boo xam ni daf leen di dal di frustré ndax fii ñëpp xam nañ ko Sénégal gii képp ku fi nekk di ab leader politique jeunes yi ñoo la mën a yóbbu fu sore sori Ousmane Sonko gis nañ ni nga xam ne moom am na ko ci njàppale par rapport ak jeunes yi c'est parce que tout simplement tout le temps day ñëw ànd ak ñoom ci seen naqar waaye itam di ci communiquer ak ñoom ci communication bu jaar yoon communication bu mucc xam ne ko dégg doo mer doo di nga ci gis sa Sonko mii kat li mu may wax nekk na loo xam ne lu jar a jëfee la te moom Pape Djibril Fall il était comme ça bokkoon na ci ñi nga xam ne dañ leen doon suivre tout le temps di jël ci ñoom exemple def ko référence ndax bokkoon na ci ñi nga xam ne ay kàddoom dañ ko daan déglu bu baax a baax ay kàddoom dañ koy bàyyi xel ndax nekk na ay kàddu yu am solo yu mu naan yëkkati kaddu itam yoo xam ne c'est très instructif kàddu yoo xam ne itam boo ko dee bàyyi xel rek dina la jural njëriñ comme nag dafa jóge ci benn jafe ak jeunes yi warul woon yëkkati kàddu yi ni mel mënoon na ko defee d'une autre manière waaye li mu wax am na ci une part de vérité bëri na ci ay ndaw ñoo xam ni ñoom saa su nekk ci loolu la ñuy ne ñi ngi toog seen kër papa yi ak seen yaay yi jéemaluñ dara seen bopp ñu def lenn pour que ñoom ñu mën a avancer au contraire dañuy toog banque seen i ay yoxo di xaar état du Sénégal mu daal di leen defal quoi que ce soit par rapport ak lu jëm ci wàllum développement alors que ñoom lañoo waroon dem ci entrepreneuriat jéemal seen bopp jéem a teg dara subaak ngoon guddeex bëccëg ñu nekk ci liggéey bañ a xeeb dara itam def seen kéemtalaay kattan bañ mën a génn ci situation yi ñu ne seen bopp dimbali seen i wayjur waaye Pape Djibril Fall moo jaarul yoon surtout par rapport ak contexte bi nga xam ne moom fii la toll fan yii nii dafa am benn mbir moo xam ne am na ci mooy que ne Sénégal dañoo war a xoolaat naka la ñuy def ba lu jëm ci wàllum liggéey ñun ñëpp ñu daal di ciy jublu saa su ne ñu fàttali ci suñu ay jàngat kàddu yu maître Abdoulaye Wade yi il faut travailler encore travailler beaucoup travailler toujours travailler dëgg gu wér péng la waaye nag dafa am ay mesures d'accompagnement yoo xam ne état du Sénégal moo ko war a indi tekk mettre en place ay politique de développement yoo xam ne mooy permettre verbe travailler boobu ñu mën di ko conjuguer fu nekk ci Sénégal à tout temps à tout moment loolu nag état du Sénégal moo koy mettre en place état du Sénégal moo koy teg ay stratégie ndaw ñi ñëw ñu woo leen ci ànd ci ak ñoom ci liggéey bu mucc ayib waaye xajj ak seen du am comme la Zahara doon wax président Macky Sall sa Tamba saa yi su ay financement ñëwee day am séddaleem bukki boo xam ne da ciy daal di am kumba am ndey ak kumba amul ndey feeñ carrément ci li nga xam ne moom la ñuy séddalee lu jëm ci wàllum projet yi loole la ñuy xaar état du Sénégal mu daal di ciy jublu waaye Pape Djibril Fall fan yi war na utaat benn entourage boo xam ne dina ko conseiller par rapport à sa communication ndax communication am léeg-léeg ça fait rapport ak situation bi nga xam ne Sénégal gi moom la ñu toll cohésion sociale li ñu soxla mooy opposition ñëpp ànd booloo nekk benn li ñu soxla mooy que les jeunes et les leaders politiques pour que ñu mën a combattre benn objectif bi ñu am benn cible bi ñu visé muy le président Macky Sall mi ñu war a wàccee ci nguurub Sénégal ci atum 2024 ñëpp xam nañ stratégie yu bëree bëri yi nga xam ne mi ngi tegu ci réew mi stratégie yoo xam ne dafa jëm ci wàllum troisième candidature bu président Macky Sall ndax dañoo jàpp ne leader yi nekk ci APR ak Benno Bokk yi gën terrain pour le président Macky Sall ngir mu mën a football matchub troisième mandat bi loolu kese la loolu la jàpp te loolu la ñu njort moo tax ñu am yaakaar ni képp koo xam ni da nga di leader politique actuellement ce discours dafa war a nekk un discours rassembleur et pas un discours boo xam ne dañ la ciy am benn bët buñ la ciy xoolee ba ëllëg yow foo teew am ay yuuxoo yoo xam ne mën naa daal di jipp Pape Djibril Fall am na benn mbir moo xam ne ñu ngi koy wàcc muy le 6 janvier bile rassemblement bi nga xam ne war na amaat la place de la nation pour montrer sa grandeur dafa war a teew pour montrer sa grandeur dafa war a jël kaddu pour montrer sa grandeur dafa war a waxtaan ak jeunes yi ci benn kaddu boo xam ne moom da leen di ramener waat à sa propre personne waaye itam jubale boppam ak le peuple sénégalais jubale boppam ak la public bi nga xam ne saa su nekk ñu ko daan suivre di ko topp di ko observer waaye itam di bàyyi xel ay kaddoom saa su nekk ak ay jàngatam lii la ñuy xaar ci moom mais pas di dem ci yenn plateau télévisé di fa yëkkati kaddu yoo xam ne da lay gën a suuxal day tax jeunes yi fa teewoon nga xam ne ñoom seen yoon nekkul ci lu jëm ci wàllum chômage chômage chômé wuñu chômé waanuñu am na ay liggéeykat yoo xam ne ña ngi fa woon teew am na ñoo xam ne ay étudiants lañ dañoo jàngi wàcc ñëw fa am na ci ñoo xam ne la plupart amuñu sax trente ans yu mat ñoom ñoo fa teewoon yow nga yëkkati ay kàddu généraliser ko de tell sorte que dina am jéppi sax boo xam ne mën naa jógee ko ci ñoom ñëw ci yow wala boog mer guñ amoon ci yow mu gën a yokk kon nag un leader politique surtout nga nekk ci opposition di xeex le pouvoir am na noo war a waxee am na noo war a jëfee am na itam ay kàddu yoo xam ne du moment bii lañ koy yëkkati surtout nga nekk ci ay jafe-jafe surtout nga nekk ci ay problème loolu nag dafay wane encore une fois que ne moom Pape Djibril Fall war naa gën a defaraat entourage am war naa gën di waxtaan ak ay mag war naa gën di xoolaat ni nga xam ni noonu lay yëkkatee ay kàddoom ak ni muy communiquer ndax kat depuis un certain temps il ne fait que des erreurs par rapport à ses discours par rapport aux propos qu'il tient face aux Sénégalais du ñàkk ne lii moo tax gars yu bëri jàpp ne dafa fare ak le président Macky Sall ñoom ñoo koy financer ñoo koy jox xaalis ñoo koy jox tous les moyens nécessaires pour que moom mu mën a mëne à bon escient lépp lu jëm ci wàllum politique am waaye ñun ñëpp xam nañ ne Pape Djibril Fall c'est une personne digne c'est une personne respectée c'est une personne itam boo xam ne ku am ay valeur boo xam ne itam yaakaar la pour le Sénégal ndax dañ koy fàttali loolu la ñuy suñu jàngata laka ndaw la waxoon ne que Pape Djibril Fall vous êtes notre dernière chance mën ngaa bokk ci chance yu Sénégal yi ndax nag am na fi ñeneen ñu fi nekk dëgg la gaa mais yow am nga taxawaay boo xam ni bés boo defaroo bu baax a baax gën a defar sa discours gën a juboo ak l'opposition du Sénégal mën na am ëllëg yàlla defal la loo xam ne dina la bett defal la loo xam ne mën ngaa bokk ci ñuy jiite suñu am réew ndax puisque benn objectif bi ngeen am mooy defar Sénégal muy Ousmane Sonko muy Pape Djibril Fall muy xalifa Sall muy Déthié muy comme ci di doon baax tax ñëpp nañu àndandoo booloo def benn say pour ëllëg Sénégal gile la nga xam ne daloon nañu ci Benno Bokk Yaakaar bañ ñoo dal ci Yewwi Askan Wi ndax Benno Bokk Yaakaar dañ ko formé woon pour que ñu mën a xeex le président Abdoulaye Wade ngir daal di teg le président ñoom ñëpp ñu ànd seen ab gouvernement ngir mën a liggéey Sénégal mais dañoo dem ba ci biir gis benn mbir moo xam ne jógee na ci président Macky Sall di feeñ ba ñoom ñu ci bëree bëri rocceeku demaat duggaat ci opposition bi tey nag Yewwi Askan Wi bëri nañu ci nekk ñoo xam ne ay gor lañ bëri nañu ci nekk ñoo xam ne ay garmi lañ bëri nañu ci nekk itam ñoo xam ne am nañ yaakaar ci ñoom xalifa Sall déclaré na candidature am Ousmane Sonko Malick Gakou du ñàkk dina am ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne dinañ ci dugal seen ab candidature yàgg dara nañu toog te xaar waaye liñ bëgg te soxla ko te mu nekk li ñu yitteel mooy une opposition unie une opposition indivisible une opposition boo xam ne ñooy xàccandoo di doorandoo ndax benn cible la ñu am moom itam dafa am force de frappe ndax saa yu su dóoree léeg-léeg dafay ah, dal te dal bi day métti lool muy le président Macky Sall ak ñi mu àndal kon nag mbooloo mooy doole bu ñu ko fàttee mbooloo mooy mën a tax ñu mën a atteindre les objectifs mbooloo mooy mën a tax mën a yegg ci li nga xam ni moom la ñu soxla muy accéder à l'alternance ici au Sénégal te bu ñu fàtte suñu devise mooy un peuple un but une foi buñ ko defee rek dundee ko jëfee ko ñun ñi nga xam ne ñoo bëgg suñu am réew am changement dinañ ci daal di am satisfaction totale te bu boobaa njëriñ gi ñun ñëpp ñoo ciy daal di am ba ci sax le président Macky Sall mi nga xam ni moom lañ bëgg mu wàcc ci bopp nguur bu Sénégal AGT News